الحمد لله حمد الشاكرين له نان سانت يالا في كل حالاتي ثم الصلاه على المختار من مضر كبور دفر غير مسخ دي خير قدواتي قضاؤه نافذ فينا تكن دوكو فك لوموي دي نانغوغا جوت خير الجزاءاتي قد قيل لي أدناي دار الغرور تلوير خمنا كوتاي بمجلي نور الدراياتي قد كنت أحسب أن الدهر يمهله موي سخشين دي جمل رمز النبوات فجاءني نبأ الوفاة فاجعة مع الكمالين ذا رمز الكمالات ووري الجسم مع طلوع عام جديد shérif sa dem géema yéem abul bishaaraati taawun wakaafun ci aw tabaski moom la fi jóg mooy weeru nangul bu wér rabbu samaawaati mooy weer wa yàlla gërëm jaamam ba doon xaritam nanguy jëfam daaka yak fii lii dalaalaati ixtarta rabbaka wal ansaaru muttajiha ila samaai wada ramzu sumuwaati kuntum samaama amaani dëhri lii dafa wér ci waaju sella ju xam cër baak makaanaati xat kaana shamsan mu biinan mooy atam ma mu dem bayyanta kullal waraa nax jël hidaayaati jëlal ma lii ta nga xool maanaa yu yi mu am lee tax xanaa ñëpp daa bekk fil bayaanaati yaa dëhru ayna rasulullahi war rusulu أين الدعاة إلى رب السماوات أين الملوك يدكون قصور ياك باليا ñoom ñëpp tey ña nga weet di xaar qiyaamaati sama mënoon bàyyi leen duniyaa bu leen këdi wut bu leen xëccoo poñetam baleen nizaati kunu mushaatan li jalbil xayri moo di waxam wala takunu duaatan lil gawaayaati فإن رحلت عن الأنظار دو مسا جوك تخلي يا عبد الله رمز المسرات نون وكاف وهاء في العطاء تلوير مسيو بمتن هنيئا في العطاءات هجرت مدجعكم في خدمة الملأ بتخنا نيب دي وخ نعم المزيات طوبا ونجاسان ومن للفاس ينتسبو نيوم نيب نانغو سيتير bayna rijaalaati uxuwatul ummatil muxtaar yaa dundal lii la ñépp di wax alal minassaati mashruucu mujtamail haadi de yaa ko jotal ci teggin ak rafetal duuna atidaati niltum ridal udama yaa sheyxanal karami xam naa ni raw nga ci lii kulla rijaalaati laa garwa yaa abdallah antal mushaar ci sama manoon yaay jotal kullal balaagaati ekoolu mahdiyu fil islaaxi yaay ki ko xam moo tax jullit ñi sëngéem min duuni ray baati xiirtal nga subbaana ahlillaahi fil amali defar nga góor ak jigéen bañ mel ni najmaati bashaashatul wajhi lay gindee ba ñépp a ko miin laaxun fa yaa ko dundal kullal majaalaati jeunesse bi yaa ko dundal bañ mujj doon royukaay ci njiit gu bëgg tabax subbaan wa shabbaati décomplexé nga leen ñuy jàmm yàlla bu wér sellal liggéey sàkku xam-xam duuna ray baati tabaxta man haja xayri naasi waalidikum ci say wax sa jëfin fi kulli laxdaati neama raisu wa neama alqaaidul karimu uufoon nga góor ak jigéen fi kulli xaalaati لا شك يا عبد الله سدم جي باينا تاي جرحا على القلب يا نور الدرايات لجي بتارنا كي تبخ بجوكنا خنا فالله يجزيك خيرا في المهمات يا لدف في قلوب المؤمنين طرا سوى المنافق أو أهل الغوايات قلوب أهل الإله لدون جنول وخم لي تير لبولكو خياس أهل الدعايات feesonna del tedal duwan jullin ñi dayoom moo tax mu doon royu waay fii kulli xaalaati tabax nga diine ji ciy valeur yu rëy yu kawe yu leer ni jant bi yaa nuurat diraayaati subaana ahlil ilaah bul bàyyi mukk ndonol yi muy sànku konte nga juum min duuni ray baati nañ man ci tool yi ta man ci jàkkayeeg jàngu yi sellal sikar si te gëm xayral bariyaati lii mooy ndonoom gi mu jox kuy sàkku yàlla bu wer te bëgg dundagu teey ahlal hidaayaati yaa waarisal jaddi wal aabaa'i wal kurama sa lampu mam bi du fay fii kulli laxdaati fanam hani an marixan yaa wasilatana jazakumullahu xayran fil xol yaa weddi xalam sa jëf yu yi nga jëf tanaa la fokka mu beel nuurat diraayaati xijaab yu yi la yiir ngir bëgg ñépp di roy doxin wa ak nite ga fi kulli xaalaati atharta sumtan hudu an bi sa mbir mi ñëwee anil xilaafata yaa muxyil uxuwaati sab dar jaamu leen te bàyyi coow ci lu dul islaax lu dëng telaab tilkal wasiyaatu shérif ba di janoo ka fuglu ma amila njaboot ga wuutu ka fi shattal majaalaati yàlla la nangul xanaam ba tax ñi ëpp yëgul sa dem gi yaa abdallah ramza dalalaati xoolal maratiba sumtin fi rijaali nga xam minal wusuli wa min safwil iraadaati waxal ni mooy sullamun ila salaamati min waylaati daa in waxal min kulli aafaati shariatul xaqi la tadlila duuna gumuud mooy sab asaas ci tabax shabbin wa shabbaati bëggul ci dun bi lu dul wooteb libaas minu gëm jot fépp ndax te am xayral xalaasaati ahlul xawaa'iji turran jublu nañ ko bu wér mu doon teral ak di faj li kulli xaajaati axyal layaali ma ashubbaani ñépp di xalam ba xol yi fees di xalaat rabba samawaati jaabal fayaaliqa wal anhaara ngir di jotal ilal wara ba ñu xam maxsar risaalaati xam naa ni luy dunda fil ala wa fi sufuli duñ dañ di seede sa mbaax di joy sa dem gi di békk ngir jëf juréy ji nga jëf te naa ko beel nga shérif nuurat diraayaati liggéey bi duwina fi saxaaifi dahabi tabqa ka shamsi duha baanat fi zulmaati nga xam kajoor Casamance suuf saa ngi seede sa jëf di bég si moom dina moo tilka ziyaaraati fa mawti ul qadamil axyaari cër yi yamul xoolal ma gis oshtaka nga am diraayaati kon gaa yi nañ ko di jooy ci roy jukkoom yamu am lee kay bégal fa mu toog muy am bishaaraat yi lillahi darruka yaa abdal ilahi baxin fallahu yajzika fi tilkal muhimmaati lii kay duyeem ndax samaam yurwir rijaal ku fi naan ka'sa nubuwati aw ka'sal wilaayaati lii doy na cër yaa sharif lii doy na martabatan inda rijaali wa fi ahli diraayaati zayyantahu ci liggéeyal yàlla duuna kalal fal muxtaaru xidmatuhu nuurun warut baatu xam naa ni kon sa ndonooy mën hëj bu wér bi nga jaar fii nashri daawati bàyyi laay seydi saadaati te lii du fay ndax njaboot gi jox nga leen ko bu wér te yoon wi leer na bilaa shakkin waray baati raaqabtahum yaa sharif qabla alxiyaabi na am fallahu yusniduhum fi kulli xaalaati ahlal ilahu turkul xilaaf la njool ma waxoon taalafu moom la wax seetal fi xutbaat yi wajahidu nafsa wa sheytaana bun di xajal sheytaane konte ñu mooy darbal hidaayaat yi iblis du dañ di ñu xeex feeg ñoo ngi jéem li ñu man ci jaamu yàlla ala nahjil hidaayaat yi muhibbiina ne bàyyi notoon na lain laakinahu lam yais nañ moytu xudaati la uxwiyan na la giiñ boroom banaa ko du ñépp kon ahlulaay jàppaleen shamsal hidaayaati fali ibaadun bi dikrillaahi qad jubilu lu mbir mi nëx-nëx ñu roy xayral bariyaati ñooy ñiy jëmmal daawatal imaami sayidina baynal anaami ci gëm shamsal hidaayaati lee tax xanaa kay shérif mi wuutu mag ñi xamul noflaay di bëgg ñu jot xayra simaaraati tànneefi tànneef yi roy leen maam limaamu bu wér wala tuqaasu bi asxaabi diaayaati sellal utin jaamu raxmaan dimbalante bu wér bëggante wóolu limaam xayrul bariyaati saxoo zikar dunde maanaa dikrullaahi bu wér tariqatul qawmi fi idraaki gaayaati te bañ dinaagu ci buur bayna rajaa ila wax wal xawfi ndéem jotu leen rëmza saadaati yaa rabbi yaa samadu aaral tariqa limaam te suub njaboot gi ilaa nahjil hidayaati ma alihi wa kazal asxaab te dool li ngërëm baay abdullahi na jot kullal bishaaraati attir tawal waabilal rahmaati fi rawdatin bi denc soppib jullit ñépp duuna rey baati mu doon tawab waame buy bégloo ku soppa jëmmam doon làmp buy gindi kay fi kulli xaalaati libaas gay bu al imam Mouhamadou Sakhir gay